Uh-huh. dañ fi ñëw may tàmbali yéen ñëpp ma di leen di gërëm di leen sant seen teewaay bi eh, ngeen ñëw fekkee fi ambassadeuru Allemagne ñëwee tey eh, du ñu indil eh, ndimbalu Allemagne bu mu jagleel gendarmerie pour jàppale ko ci liggéey bi muy liggéey ci mbas mi ñu jànkonteel ñaari weer boobu ba léegi Euh, may tàmbali di di di fàttali euh, mbir mi fi mu ñu fekk daf ñu fekk état Sénégal taxaw taxaw bu dëgër créé euh, li ñuy wax force Covid 19 ah bi nga xam ne moom mooy organisé opération de de lutte ah, mooy xeex mbas mbas mi. dajale ndimbal bi ñu war a euh, jagleel askan wi pour jàppale leen ci jafe-jafe yi ñuy jonkante ci loolu la ñu fekk euh, nguur gi taxaw état bi taxaw euh, service yeeg ministère yeeg organisation yu bëre indi seen participation indi seen ndimbal pour jàppale réew mi jàppale askan bi nit ñi ku ci nekk am am fu mu toll nga wane sa pas-pas indi sa euh, sa participation ci opération yooyu donc Allemagne ci loolu la ñu fekk indi ñu lu mu ñu yokkee pour gën a yombal sunu liggéey euh, muy fii ci dakaar muy fépp ci Sénégal jàppale ñu ba nga xam ne ñun dinañu am dinañu yokk li ñu yoroon euh, ci ay jumtuwaay pour gën a mën a ak ak mbas mi donc ñu ci gërëm allemand yi réewum Allemagne di ci gërëm conseil militaire allemand yi nga xam ne ñoom ñu ngi Sénégal ñu ngi fi commencé yàgg dañuy jàppale ci euh, ni ñuy euh, liggéeyee ak ay xaj ñuy jàppale ci affaire euh, police mooy mooy xaj yi nga xam ne ñooy wut drogue xaj yi nga xam ne ñooy wut explosif ak yooyu donc loolu moo leen fi indi waaye gis nga bi ñu jonkonteeg mbas mi pour wane sunu seen coloré gën a yokk fas coloré sunu diggante ak ñoom ñu indi seen euh, seen am-am ñu yokk seen doole indi seen doole pour yokk ñu doole jàppale ñu ci euh, jafe-jafe yi jànkonteel actuellement donc